monsieur le ministre. amul lu ñu xam nga sax kàddu yi yi parce que ñaari plateau daje nañ ci ma tànc la. te dama lay tàncaat le problème qui se pose xam nga mooy lan. mooy que croissance bi ngay ñuy wax. Euh, siiw ngay taux croissance boobu duggul ci poste sénégalais yi. parce que les gens vivent dans ce pays àll bi boo fa duggee condition fii gën a riche ci Sénégal ñoo gën a sonn. loolu ngeen war a lijjanti ñii ëpp ressource minière toog ci ay milliards toog ci richesse ñoo gën a sonn ñooñu la a lijjanti a di jël ay indice la moo tax jëlul indice IDH monsieur le ministre de la justice ancien ministre de la justice IDH bi neuf places la ñu la ñu la ñu dellu ginnaaw ci pauvreté donc nag nañuy wax dëgg sénégalais li am Euh, très bien alors euh, monsieur monsieur Ly également comme comme euh, question pour pour Mamadou et son candidat xam naa ne ñëwu ci mais dinañu amal benn occasion parce que temps moo ñu ko mayul yow mi nga xam ne également jàpp nga ne bilan bi lenn am na loo xam ne baax na ci mais am na lu ci des est-ce que vous allez faire mieux que le président de la République Macky a Euh, jamono day dox. sax mhm. day weesu ba tey. Mhm. fii président Macky ba mu ñëwee son excellence dafa fekk euh, réew mi daf ko fekkoon ci ay loxo. Mhm. ñu jox ko ko dans certaines condition alors j'espère que c'est pas moi qui fais si. oui allez allez donc je disais que dafa fekk réew mi ci ay loxo. Euh, ñu daal di ko koy transmettre. wax na ko deux mille cinq cent milliards. mais mënoon nañu jël door a jël indépendance. quel était le mhm. budget du Sénégal. moi j'ai mhm. pas le chiffre mais je sais que ça devait être relativement euh, très faible. Mhm. c'est normal c'est le processus normal la population croît l'économie croît tout un tas de choses évoluent donc c'est normal que léegi-léegi su ma juumalee sax euh, mon frère Bougane maa ngi au passage euh, wax cinquante mille milliards je pense qu'il a dû faire le cumul des budgets sur, les douze ans, n'est-ce il a pu faire plus parce qu'il a eu beaucoup plus de ressources que ñeneen ñi ñun tamit am nañu yàqin ni que bu mu yàlla defoon ñu toog fi am plus de ressources ak de ressources yi ñuy am yaakaar en plus pétrole beeg gaz bi ak yeneen yeneen ressources naturelles yi euh, stratégie ñuy wax notamment en termes de souveraineté parce que souveraineté bi bu ñu ci ñëwee rek te may may ma ñëw ci parce que je voudrais euh, sur deux points le euh, aussi aux deux ministres c'est très important aux deux ministres et au président euh, Bougane ñoom ñi ñoom ñëpp dama leen bëgg a euh, bëgg ñëw ci question souveraineté monsieur Euh, euh, euh, des affaires étrangères vous avez évoqué par exemple la question de la souveraineté énergétique c'est vrai on est passé nu mu ko waxee à mille cent et quelques mégawatts mais est-ce que vous savez monsieur le ministre qu'aujourd'hui nous louons près de trois cent mégawatts de capacité aujourd'hui au Sénégal on a un bateau qui est ici à, à, à, de Dakar là ñu ngi fay louer près de trois donc son sa souveraineté des na Euh, monsieur le ministre, est-ce que vous savez que, toujours dans le secteur de

est-ce Sénégal tey de Sénégal ak fi réew mi toll mën na nangu di perte 1300 milliards de francs CFA dafa mel ni nga yor euh, euh, euh, ab ndaa di dem ci ci ci ci ci teen wala ci ci dex di fa di fa root ndox pour ñëw di ko jaayaat ci dëkk bi li muy nit ñi yokku besoin bi yokku nga ne il faut ma jënd beneen ndaa mais yow fekk sa ndaa mu ngi senn jéemoo lijjanti naka ngay def pour fàtt fay senn senn yooyu donc <laughs> donc jeexagul c'est extrêmement important may ma rek c'est important ngir yàlla may ma rek c'est extrêmement important parce que loolu am solo la euh, beneen bi may ñëw sur la question parce que lii su ma ko waxulee waa Fouta duñ ma ko baal euh, waaw ma daanalee foofu ma ne lii su ma ko waxulee waa Fouta duñ ma ko baal par en plus de Kër Massar. Mhm. jóge naa fi benn jour 5 heures du matin dem Fouta ñëwaat dans la même journée. Mhm. ça c' était inimaginable je dis bien avant. loolu moom ku ko waxul da ngay wax loolu ne. absolument jóge naa fi dem fi Madina Gounass seeti Thierno Amath Tidiane Ba radiyallahu anhu maa ngi koy nuyu di ko au passage dem dans la même journée dem ñëwaat même chose. c'est-à-dire loolu mënoo ko lam-lame mais mais mais, oui. mais Fatou Abdou mm -hmm. man je suis allé faire une tournée à l'intérieur doon wax les mines mm -hmm. mais je parce que su ma ko waxee su ma ko waxee duñ ma ko baal. Mhm. mooy maanaam le bord du fleuve les populations au bord de Dandemayo. Padalal mhm. euh, Bapalel Ngano euh, euh, comment on appelle ça encore bref su ma su su ma su ma limee damay damay juum. Lorduga dans le Ferlo. je suis allé là une distance de de par rapport ak route nationale bi c'est une distance de pas vingt cinq kilomètres.

Ça va être ah C'est dommage que nous soyons. Wow. <laughs> a de choses à bien dire. Sûr, eh la gestion euh, du dossier de Ousmane Sonko ternirul maanaam amul lu mu tilimal euh, ci bilan Macky Sall maanaam est-ce que bàyyiwul ay plume. ci boobu dossier man du ma d'accord nga may dugal ci ay dossiers. ah oui mais mais mais loolu non non du ma d'accord loolu parce que Amadou lii dafa wax lu am solo. li mu doon wax nii. mais mais lii aussi dafa am solo oui. maa ngi koy ñaanal mu am parrainage waaye nag su ko amul dama koy bëgg mu ñëw jàppale suñu candidat ah. te vraiment gis naa continuité ndax gis naa vraiment ni mu défendre continuité wax ay réalisation yi def rafetlu naa ko nit yàlla nga ngay nangu ndogal yàlla man dama munoo bu la yàlla defalee li nga bëgg nga kontaan bu yàlla defee leneen nga nanga ne nga nekk fii di bëgg a kii c'est-à-dire on a je suis d'accord nag ak li Mamadou wax peut-être que bu ñu dindi woon. mais rationalité la donc dès lors que le hasard le hasard est mhm. donc bu ñu ko dindi woon tamit Mamadou. peut-être que non non waxuma foofu xel li mu nangu laa wax. pour terminer bu ma leen di jox. oui euh, monsieur le ministre yéen ñaar ñëpp ah les <laughs> les ministres mhm. fexe leen waa yeesal Sénégal jàll ndax ngeen am. ah kon ñoom ñooy fexe ah. non damay wax rek <laughs> kon tout le monde tout le monde sait ñoom ñooy def sélection. xamante ni dafa am loo am solo loo xam ñu ngi ciy waxtaan te Sénégal dañ koy <laughs> wax mooy taux de mhm. mhm. sa koom mhm. yokku nga amoon cent nga am cent cinquante ñu calculer par rapport à cent taux bi la soo amee deux cent ñu ne def nga

dafa dafa dafa woote ci ci ci ci ci ci asamaan si. Mhm. déedéet fonctionnaire lu ñu tax duñ yokk seen salaire yow doo mhm. fonctionnaire ci privé bi nga nekk. mais tous les fonctionnaires du Sénégal ñi yokk leen trois cent mille. Mhm. ñi yokk leen cinq cent mille lan moo ko indi. xaalis boobu fan la jógee. c'est eh lebu ñu ko dafa naag. oui ah, lebu ñu ko taux de croissance bi la. yi ñuy defar. fu mu jógee xaalis bi mais taux de croissance bi moo yokku. ay cimenterie yi ñu am. lu tax loolu leer na lu tax léegi ñu am par rapport à la gestion du dossier Ousmane Sonko. très ah, rapidement ñu ñu terminer foofu parce que li ñu tëralee non xam nga foofu lay jeexalee parce que man bugguma di la di ci sa gestion temps bi. xam nga na la mel nga ne gestion Trump bi Donald Trump est-ce que du naxasaayal démocratie américaine. non Sénégal laay wax man. dossier bi comparaison nga ne ma nga ne nga ne ma dëkk dëkk ban dëkk sax dëkk yëpp am loolu. Mm. nga ne ma dëkk bu mel ni Brésil Lula. li liñ ko condamné woon foofu ba tere woon ko mu nekk candidat à l' élection présidentielle après ñu war na nekk président est ce que loolu euh, yàqul démocratie brésilienne mais non. est ce que Macky Sall n'a pas laissé de plume. dans le dossier Ousmane Sonko non c'est pas ça c'est-à-dire xam nga hmm. la mel. nga ne ku politique rek bu mu am dossier soo nee damay politique rek kenn du la jugé bu mu am. dans un pays tous les citoyens sont égaux devant la loi justice nag dañ koy respecté justice su rendre décision ñu respecté ko xam nga foofu jeexalee. nangay xame indépendance de la justice dans un pays dooy affaire u rek de dooy affaire u magistrat affaire u xam nga la c' est l' imprévisibilité des décisions de justice imprévisible Sénégal tey fi ñu toll nii su ñuy rendre benn décision kenn xamul kenn du président de la république du ki nga xamante ne moom la concerne du juge yi kenn kenn du xam justice ban décision ban sens lay loolu mooy indépendance de la justice dans les pays où la justice n'est pas indépendante les décisions dañ koy xam président day xam lan mooy décision mais ni fii nous avons un système judiciaire où les décisions de justice sont imprévisibles mun de dem dans un sens comme dans un autre léegi nag fa lay jeexal sera mon dernier mot faites-moi confiance su demee dans le sens qui nous arrange ñu ne la justice est indépendante su demee dans un sens qui ne nous arrange pas ñu ne la justice n'est pas indépendante loolu nag doit toujours alors oui professeur Ngouda euh, pour le professeur a xam nga dama yàgg wax ne ween yaay lax na lool waaye Hmm. doom yi ci la ñuy lu mu bon bon bon suñu justice. je fais partie de ceux qui défendent défendent la justice parce que la notion de démocratie constitutionnelle dama ko gëm avec la justice au poumon. Mhm. par contre su waxee le principe de l'imprévisibilité de la justice d'accord mais c'est pas le principe de l'imprévisibilité n'est-ce pas des décisions de justice qui fait l'indépendance de la justice c'est l'impartialité en réalité imprévisibilité dañ koy xam alors que avant décision bi ñu koy jël ministre de la justice par exemple day taxaw ni cour de justice de la CEDEAO bu jëlee décision duñ ci tënku ah, on viole le principe d'impartialité c'est là où le bât cest dire que en fait avant même la décision di ñëw xam nañu attitude bi nga xamante ne nguur gi attitude boobu la bëgg taxawee moo tax may wax toujours le propre d'un gouvernement dans des affaires judiciaires ce en sorte que justice soit rendue comme disait Antonio Cassés mm-hmm. benn bi may dellu si du yokkute rek. Mhm. parce que bu fekkee ne taux de croissance mooy croissance endogène bu fekkee c'est une croissance extravertie. amul sens. Mhm. Sénégal loolu lay dund day am un taux de croissance à neuf chiffres et cetera alors que Total Orange ñooy jël yëpp delloo à l'étranger mais loolu amul sens. Mhm. dañ ñuy bluffé et loolu day indi beneen aspect mooy lan par exemple le président Macky Sall il parle que d'infrastructure de support alors que il a été démontré. man j'étais avec des candidats récemment au au King Fahd Palace. ñu leen di euh, interroger et tout le monde est d'accord que au Sénégal. Mhm. li war a régler problème mu xëyu ndaw yi ak li war a régler suñu problème de souveraineté dans tous les domaines. mooy mhm. l'industrialisation. Mhm. alors que président de la République foofu dafa échoué. beneen bi ci topp mooy sànq dégg naa le ministre muy wax les industries extractives beneen boobu boo jëlee par exemple la question de l'or mais ñun suñu or tey par exemple li ñuy perte Mali sax moo ñu gën demin parce que ñun amuñu usine de raffinage alors que des amendements ont été faits pour ne serait-ce ñu am usine de raffinage à 3 milliards virgule 5 ñu bañ mm-hmm. beneen bi si topp mooy ah. li may wax day am lu koy dëggal jëlal les événements de Xosanto parce que nit ñi dañu nekk foofu noonu di mm-hmm. dund dans les industries extractives ba pare di ci dee et pourtant dañuy wax ne yeneen outils internationaux ñooy ñëw ne ni ñu ko yoree baax na mm-hmm. foofu lay dellu si di wax ne nañu gëm suñu réew gëm suñu bopp beneen bi ci topp mooy Ousmane Sonko conserve l'intégralité de ses droits et il sera candidat et il participera parce que tout simplement partout où le droit sera dit Ousmane Sonko